rafetal li mu la sant ni mu la ko sante su dajee muy diine xam nga léeg-léeg ñu songu benn fan yi ñu ngi nekk ci affaire góor jigéen ñu ne yow ñu indi affaire doro mais boole liin ci riba liggéeyloo nit fayoo ko moo gën a garaaw liggéeyloo nit fayoo ko moo gën a garaaw bi ci des góor jigéen góor séyee góor ñaari góor séyante oustaz bu ci waxul amul wax nañ ci ba tas du sëriñ bi du borom xam-xam bi déedéet yàlla moo wax ne atatuuna rijaala shahwa min duuni nisaa yàlla ko waxal boppam fii ku fi yor wax amul dangay jottali wa ma ala rasul ila al balaaqul jottalil te nañ ñi kon góor ñuy sëyante reye ca war loolu la yàlla xamul leneen tout court jarul wëndeelu jarul wiir jarul laa góor ñuy séyante mooy lóot su dee góor jigéen mooy mbindeef la day am ween comme jigéen am awra jigéen am sikkim bu góor am awra góor di génne mën mëniyu di génne règle li góor am mu am ko li jigéen am mu am ko ñu ne kii góor jigéen la am na li góor am am na li jigéen am ñu ne kon góor la jigéen la bi mooy góor jigéen bële nag li ko alxuraan tuddee mooy góor ñuy séyante mooy loot góor guy séye morom ma ñuy séyant dañ leen di jamat ba ñu dee ñu sang leen sang leen jullee leen ku leen di jullee ku ñàkk daraja ku mel ni Iran doye di moo koy jullee ñu dem suuli parce que jullit bu mooy yàlla la bu def bàkkaar kan lawaati ca charha ba jeex na loolu rek mooy atte bi jarul coow li su fekkee charia dox na lii mooy atte bi bu charia doxul lii mooy atte bi ñu indi texte bi nag wa man lam yaxkum bi ma anzala la fu lay ko mul kaafiroon yàlla neen nag ku àttewul lii ma tëral weddi ma ñu dem rési béti di kaar incha allah jël publicité ya fa nekk nax ci la bokk nag ndoy kon loolu mooy àtte bi yàlla nag ne lii ma tëral lii àtte bi mooy ku góor gu séyee morom ma ñoom ñiy séyante nañ leen boole rey gis nga góor gi wër góor pour séyee ak góor ga ñuy séyee ñoo bokk àtte muy faayil ak mafaul ñoo bokk fa aw àtte arrajme mooy seen àtte jam jam ba ñu sedd guy ñu sang leen sang leen jullee leen ku leen di jullee ku néew daraja ñu suuli leen lii mooy góor góor ñuy sëyante mooy àtte bi góor jigéen mbindeef la mooy lii ma la wax amoon na ci suñu njongal mu mag ma xale boo xam ne docteur yi ñoo ma oo ma Iran kaay kii góor la jigéen la awriñ jigéen gaan ci suuf góor gaan ko tiim ma ne leen lu ci pexe ñu ne ma dañ koy opérer éliminer jigéen gi danaa màggagul looluy góor jigéen góor ñuy séyante rey mooy seen att parce que ku ne fa koy def du foofu su dee jigéen ñuy séyante muy wax nañ leen ko wax mais alxuraan doogu la wàcc lii dooguñ koo wax nit ñi wax nañ ci ba tas amul oustaz bu ci waxul amul ti yàlla wax ñu jottali jigéen sax boo seetee sax góor gu séyee góor am na sax lu mu def sa gannaaw góor ga mais jigéen lu muy def ci morom ma waxal mais ñaari mais ñaari kubéer nu ñuy ubante ah kubéer ak bool waaye ñaari kubéer mënuñu ubante moo tax bu jigéen bi soof ci dafa bokk ci jikko yi gën a bon nga indi lekk riba wa inna arba riba istimalatul mara fi ardi aqi riba li muy garaaw garaaw jëwa ko gën a garaaw te benn dërëmu riba nga lekk alalu nit mayu ko saraxula ko moo nit ku takk ndeyam ñu may ko ko jébbal ko ndeyam mu séyee ko li muy garaaw garaaw garaaw lekk benn dërëmu riba ko gën a garaaw lekk dërëmu riba li muy garaaw yépp jëw ni te ko gën a garaaw wax ci moom safar dugal leen boobu nañu bàyyi su dara amee ñu créer benn affaire pour camoufler bii nañ bàyyi loolu charia mooy wax du nit ñi ñooy wax charia yàllaa ko tëral mais yàlla moo ne ñiy jëw ndóoy lekkatu nit lañu ijtanibu kathiran mina zanni inna baada zanni ismun wala tajassasu wala yaxtab baadukum baadan ay yuhibbu ahadukum an yakula lahma axi fa karihtumu yàllaay wax Iran waxul ñi wax ñëpp waxuñu wax yàlla la ñu jottali Sidna Omar daax yonent bi ne ko deemal leeral li nga wax ak yàlla wax su dee yaa wax neel dama ne su dee yàlla wax neel yàlla ne c'est ça mu leer kon ñu bàyyi xel ne jëw nit moo lekk nit a yem kon dëmm ngoo yàlla ne ne kuy jëw nit yaa ngi fekk mu midd nga seeñu ko dal ci deru gor li muy garaaw moo gën a garaaw foofu nit ku takk yaayam tëddee ko kon góor ñiy sëyante alxuraan nee na déedéet laafa ak musóor laa waxuma musóor ak musóor waxuma laafa ak laafa mu leer riba benn dërëm bu lewul